defal ko ab mémorandum boo xam ne danañu ko xaymal ñaata nit ñoo ci faatoo waaye tamit danañu ko xaymal yàqu-yàqu yi nga xamante ni am na ci danañu ko xaymal ñàkk yi nga xam ne Sénégal ñàkk na ko ci ci lu jëm ci wàllum kooma maanaam perte économique yi loole tamit bokk na ci li njiitu réew di président Macky Sall sàkku ñu daal ko ci andil bilan bu leer nañ ñi journal bi de la témoin xëy di ñu xibaar naan ñu ñu bari ñoo ngi doon xaar xam ne moo amoon ci réew mi waaye nag moom Macky Sall na bi la yëkkati ay kàddoo mooy ginnaaw dialogue national bi Macky Sall ci conclusion dialogue national bi lay wax waaye nag du wax ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkaane ci manifestation yi nga xam ne moom la génn yéenekaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Tina moom nag daat nay ñaawlu bu baax a baax tojaa yi nga xam ne nguurug Sénégal def na ko waaye tamit ñaawlu na bu baax a baax yaccaaral gi nga xam ko journal bi de Le njiitu réew di président Macky ku jàpp ma ngi wàcce garde bi maanaam yaa ngi nax sa bopp Macky Touré mi fi nekkoon ay jamono premier ministre bu Sénégal nee na lu jëm ci wàllum dàq élection yi ñoo koy laam-laamee waaye nag loolee ànduñu si tey ànduñu si ëllëg te li am ba des mooy élection présidentielle 2024 dinañu ko amal ci nii wala ci na ba ñu ci nob ñu saañum ngeer te Macky Sall moom ci boppam du bokk ci yooyu la élection yéen a kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa maître Omar Youma moom nag nee na lu jëm ci wàllum dàq élection Ousmane Sonko daan na interpellé ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi di ministre Antoine Diome ci séquestration bi nga xam ne jamono ji moom la ñu def Ousmane Sonko moom maître Ciré Clédor Ly nee na nag usman Sonko ay droit ma jamono ji dañu koy violé nee na dem na lu toll ci juróom-ñeenti yoon yoo xam ne dem na ko kër Ousmane Sonko ngir bëgg ko gis ñu daal di ko koy tere moom metre nee na avocat la am na sañ-sañ dem seeti ab client waaye nag dañ ko ko tere yéene kaay gii di l'info ñu xëy fekk fa aji bu sumaare niki daan na yëkkati ay kàddu nee na Macky Sall moytul ñi nga xam ne ñoo lay dugal tamit bul déglu ñi nga xam ne nguur gu nekk ñam nañu sa nee ko Macky takkal sa fit wax ne doo bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma lay journal bi de Le Quotidien yor yora nee na dialogue bi nga xam ne moom la ñuy ŋawta ŋawte ci réew mi dialogue boobee du mën a nekk li tax dialogue bi du mën a nekk mooy paaka munoo koo jël teg ko ci boolig nit ba pare na ko kaa ñu dialogue ndax Ousmane Sonko mi ngi nii lu toll ci fukk ak ñaar ci fan yoo xam ne dañu koo daal di bloqué yéen kaay gi tamit ñoo xam ne dugal nañ leen yoo xam ne ñoom démb ci kasu bi am lu toll ci fanweer ak juróom-ñett ci nit ñoo xam ne ñoo ñàkk seen bakkan te amul benn enquête boo xam ne def nañ ko si boo si yokkee lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature bi nga xam ne moom la ñuy laam-laamee ci réew mi yéenekaay gi di Le Quotidien xëy duñuy xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñoo doon manifester sa diwaanu Kaolack ni ki démb doon nañu leen atte waaye am yoo xam ne bàyyi nañu leen ñu ñibbi yéenekaay gi di L'Observateur mi nga xam ne mooy directeur général bu LONASE nee na Ousmane Sonko ko war a jàpp ndax nee na Ousmane Sonko ab délinquant la Ousmane Sonko kooku moo waral ñi faatu ci réew mi faatu ci réew mi kàddu la Diop la ma ngi ci journal bi du l'Observateur yéenekaay gi di enquête nee na en tout cas li am ba des daal violence fitna bi nga xam ne moo am ci ëtt politique bi ak mbañeel gi jamono ji doy na waar lool yéenekaay gi di La Tribune ñu xëy fekk fa metre Abdoulaye Tine nee neena ngir jàmmi Sénégal ngir Sénégal am jàmm ngir Sénégal dal li muy sàkku jamono ji mooy le départ de Macky maanaam Macky Sall joxe réew mi ci ni mu gën a gaawee yéenekaay gi di Source xëy yóbbu ñu diwaanu cité kër góor gi nee na Ousmane Sonko ak blocus bi nga xam ne moom la ñu tegoon ca këram ba léegi mbir maa nga fa gi nee na am na ci nag ay yoon yoo xam ne maanaam nit ñi mën nañu faa jaar tranquillement maanaam yoon wi nga xam ne moo jugee ci planète Keba daal di def directement wuti Auchan yoon woowee principal la ku nekk mën na faa jaara waaye nag yoon wi nga xam ne moo dugg jaar bundu kër Ousmane Sonko yoon woowee kenn mënu faa dugg dañu koy tere ba léegi takk der ya ñoo nga fa yéenekaay gi di Libération xëy duñu xibaar naan lu jëm ci traqué bi nga xam ne moom la ñuy traqué ñi ànd ak Ousmane ba léegi mbir maa ngi mel ni tulleeg màlle yéenekaay gi di Libération xëy duñu xibaar naan ñu Falla Fleur kooke nag ci Pastef bokk juriste la Dakar naaf la doon liggéeyee ginnaaw bi ñu ko tegee loxo démb ñu ko mandat dépôt yéen gi nee na Olivier Boucal moom tim inspecteur du trésor la teg nañu ko loxo journal bi nee na retour de parquet fukk ak juróomi jigéen am nañu retour de parquet Pape Abdoulaye Touré retour de parquet Cheikh Bara Ndiaye retour de Ndaak retour de parquet Talib Sow retour de parquet bi moo tax administration pénitentiaire jamono ji gi ci lay jël di ci dugal nit ñi yéenekaay gi de la Témoin xëy duñu xibaar naan ñu police ki nga xam ne moo jiite woon renseignement wàllum police ci Ndakaaru limogé nañ ko maanaam dàq nañu ko yéenekaay gi de Libération nee na ca diwaanu Jifeer ak sa Joal gis nañu fa ñeenti néew ci ndox mi yéenekaay gi de Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu avocat Ndeye Khady Ndiaye def nañu appel journal bi di Dakar Times ñu xëy fekk fa Jean Baptiste Tine mi nga xam ne la partenaire bu baax la ngir Quotidien nee na élection yooyu soo moytuwulee dana gëllu góosee ca bitim réew ak consulat yi nga xam ne moom lañ fa tëj Ndiaga Sylla di expert ci lu jëm ci wàllum électorat daan wax ne consulat yi nga xam ne tëj nañu ko ca bitim réew mën naa andi ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum élection yi ndax consulat bi ñoom ñooy lijjanti lépp loo xam ne jëm na ci wàllum contentieux jafe-jafe yi am ci révision liste électorale yi ci pré-électoral bi Pastef ca bitim réew ñoom ti mere nañu ko bu baax a baax yéen kaay gi de direct news xëy dañu xibaar naan yàq yi nga xam ne moom la doon yàq université Cheikh bu Ndakaaru ba léegi bëri na ci acteur politique ci ku jegi ñoo xam ne kenn déggu leen noppi gi ñu ci noppi dafay niroo ne dañ see ànd ndax lu jëm ci wàllum campus pédagogique bi dañu ko taal archive yi ñu daal koy taal fac lettre ak fac médecine seen archive bu ñu ko yàqee loole